Euh, biyaa bijaa bi lan la wax nee na Ousmane ak Macky Sall ngi waxtaan ah Sall confirmé na ne am na ñu ciy dox ah waaw kon xam nga waxtaan mi ngi am kon xam nga Sonko mi ngi jàll mais mais pourquoi bëgg koo assumer non da nga bëgg ma defal ay révélation waaw <laughs>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 waxtaan ak moom waxtaanu xóot Ousmane Yara boobu moo doxoon diggante Macky sàll ak Ablaye Wade ci protocole bi ñuy woowee protocole Conakry li tax waxtaanam ak Ousmane Sonko aboutirul mooy Ousmane Sonko dafa jàpp ni dafa jege Macky Sall moo tax xóotalul ak moom am na benn sénégalais bu tudd Cheikh Diba. Cheikh Diba c'est le directeur de la waaw. c'est directeur de la planification budgétaire inspecteur des impôts et domaines la maanaam naataango Ousmane teewul kooku moo waxtaan ak yépp ba lépp loolu mooy li xew ñoom gujaa bi bi ñu leen di woo dafa dem ba waxtaan wi sotti ñu war a libérer nit ñi ñu woo leen pour ñu wax ni à l'intention du public pour nit ñi xam liy xew ak luy ñëw dégg wax bi loolu mooy li nga xam ni moo am mais Macky sàll ak Ousmane Sonko waxtaan wu xóot lañ seq woo xam ne mi ngi jaar ci Cheikh Diba boobu Cheikh Diba boobu ci Ablaye da Diallo la jaar ba am ci Macky sàll loolu moo indi waxtaan wi ñu xóotal ko ba waxtaan wi sori na lool lool lool waxtaan woowu moo indi dafay nii ñu ñu libéré waxtaan woowu moo indi. Euh, Macky Sall xëy suba def report ñu toog ay fan dégguñu Ousmane Sonko wax ci waxtaan woow moo indi moo indi voilà waxtaan woow moo indi loi d'amnistie bii ñuy waaj waxtaan woowu am na yeneen ak yeneen yu ci bokk yoo xam ne histoire dina dem ba euh, protocole du Cap Manuel dina dina gën a leer. donc ceux qui parlent après le protocole de Rebeuss le protocole de Doha mën nañu dorénavant wax inscrire ci suñu agenda. Euh, historique le protocole du Cap Manuel entre Macky Sall voilà. et Ousmane bu baax waxtaanu xóot a xóot a xóot a xóot. mais loolu mooy dëgg gi.